وعلى الصائم niyyatu yettu qabla alfajr war na ci ki nga xam ne dafa bëgg a woor mu fanaanoo yéene balaa fajar loolu bil ittifaaqi ci dëppoo boroom xam-xam yépp ci bu dee koorug farata yonte bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne man lam yusmi asiyaama qabla alfajri fala siyaama lahu képp koo xamante ni yéene woo lu jiitu fajar di jot amoo koor yéene ji nag mooy lan jëf ji la wala wax ji am ñu ne dangay wax ni dama yéene woor nangam ak nangam ñu ni déedéet jëf moo gën a dëggu wax ki nga xam ni jóg na fajar xëdd toog loolu doy na ko yéene parce que loolu daaw ko def li ko fa ba tax mu di ko def loolu mooy koor loolu mooy jëmmi yéene parce que yow heure bu dul woon koor doo jóg heure boobu doo xëdd doo waaj kon jëmmi jóg gi jëmmi xëdd gi jëmmi waaj gi rek doy na sëkk yéene yéene gi it benn doon benn yoon parce que ibaadaat jaamu goo xam ne benn jaamu la benn bi yéene dina fa doy ndax jamu jaamu yo xamni ay jaamu yu bare bare mais amna jaamu goo xamni gennu jaamu la lu melni ni so yene nit bëgg na ma wala nga yene ni da ngay wor ci sa wax wala ci sa jëf loola mën na la yobbu ba koor gi jeex lu dul nag diggante bi nga am fi lu dog am nga fi ngant febar nga wala tukki nga bu dee jigéen gis nga baax toog ay fan yoo xam wóoroo booy reprendre da nga yeesalaat li nga xam moo di yéene bi amaa bu dee koor ngàtt nga nag may nañu nit ki mu dem ba xëy ba feek jant bi wàngar ñikuwul mën naa lan mën naa woor yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf daan xëy laaj waa kër gi ndax daraa ngi fi su lees mën a xéwloo ñu ni ko déedéet mu ni kon damaa woor kon moo tax kooru ngàtt nga nit mën naa xëy rek yëg ni tey damaa bëgg a woor nga daal di woor waaye bu dee kooru farata nag moom faw da koy da koy fanaanoo kon yéene rek mooy loolu comme boo doon jàpp masalan ñu naan bala ngaa yéen da nga dem ba àgg ci xar kanam gi doog a yéene mais jóg gi nga jóg jël ak satala dem ci wana bi waaj ñëw toog fas yéene jàpp loolu bu doyut yéene amul lu doyaat yéene loolu rek ngay tudd naan damay nangam ak nangam kazalika julli est-ce bu kàbbare naan newaytu salaata kaza wa kaza dafay toog ay waxtu yu bari di lim damaa fas yéene julli julli nangam julli nangam julli nangam mën nga ko wax man nga ko japp ci sa xel mais jërut ngay wax damaa fas jul julli tusbar ñent ñeenti raakaale doon nangam ak nangam lolu bu yagge mën na la indi sax lu waswasa hmm hmm waaw lu bare bare da nga gis ñu kebetu ala kulli hal lolu parce que yit lu ñak ñoon dañ ko gis ci ay téré dañ ko gis ci ay téré te am na ñoo xam fi seen xel yam moy lu ñu bind ci ab téré wërna loolu tax bind doon lu garaaw am nit balaa jël xalimaam di bind loo xam ne mën naa dund ay nangami téeméeri ak ginnaawam na xool bu baax lu muy bind baa ak réer amu ci gu mu tey ne koy gun bind ku nekk moom di nga juum sa bind boobu sa xalima ko ngay bind mën naa juum loo ñu baree baree baree baree bare ndax boroom xam-xam yi daal wax naan suyuufu salaatin taabiatun li aq li aqlaami al ulama nee na jaasi buur day topp xalima boroom xam-xam jaasi buur day topp xalima ak boroom xam-xam ndax bu njëkk boroom xam-xam yi ñooy ifta ñoo doon ay xudaat ñooy ay àttekat bu ñu xasee bind ni nangam la buur day exécuté waaye loolu moo gën a néew kon loolu ñuy def loolu dañ ko gis ci ay téere ak leneen leneen lu bari ñuy def fii dañ ko gis ci ay téere am na nag loo xam ne moom nit ñi toog nii rek xalaat ko waaye am na loo xam dañ ko bind ci ay téere ñu jàng ko fa No